waaw na ngeen matale aj gi na ngeen matale aj gi est-ce que oustaz a nga dégg ñi ne na ngeen matale aj waaw moom mu ne waaw man moom aj rek laa xamoon léegi lan mooy matale aj matale aj mooy hmm. soo xasee da ngay xiiraan hmm. li xiiraan laaj lépp na nga ko def hmm. booy ifraat li ifraat laaj lépp na ko def booy tamattu noonu ndeysaan sëñ Mbacke ab Sénégal muy jóge fii day day aj màkk nga def gar aj ngay def mu ne nee nañ yi umra la euh, euh, ifraat la ñuy def. Mhm. foofu rek problème baa ngi foofu. Mhm. lu tax nga naan nee nañ Sénégal yi nangam lañuy ñuy def. Mhm. yow kay tànnal genn te li ëpp bu ñu ajee ba noppi nag di la indil question yi. dama bëgg umra. waaw waaw te def nga aj gi yow ba noppi. te def gi ba noppi. <laughs> te amoon nga aj goo xam ne boo ko defoon dootoo soxlaatee umra. jeex na nga ne gii laay def. te danaa ci ñambaas umra. même su fekki imaam Malik ñambaasu ko ci woon. man danaa ko ci def. <laughs> waaw déguisé mu nekk benn xiraan xiraan buñ déguisé mm-hmm. <laughs> waaw mm-hmm. mu nekk xiraan buñ déguisé mm-hmm. léegi coow la nga foofu kur waaw ndeysaan wa bu ñëwee bu ñëwee mun naa ba fay gonte dañ laa wax ne ku fa jant ba so fekk la fa da fanaan yow loo gis ah moom kay ni ñu ko yëgee rek <laughs> nit ñi moom ñibbi ba xaaju guddi ñuy ñibbi. ci rek. waaw seen yoon. Mhm. léegi nag guddi fekk la fa. Mhm. fanaanoo fa. Mhm. reyoo xar. loolu responsabilité wu kan la oustaz du pèlerin bi moom ci boppam wala guddi bi la wala kan la. ñëpp. ñëpp a ci am. ñëpp a ci am waaye waaye ki ci gën a am nag. mooy guddi yi. guddi yi leen yóbbu ñoom bu ñu andiwu doon kaar yi leen nañ dem defe naa duñ dem. waaw. mooy guddi yi. donc yooyu. bu fekkoon da ngaa dugg ci kaar bi nag jant bay bay génn jant bi fekkal fa ndax embouteillage bi la. waaw amoo problème. maanaam jant bi sooyee la ci yoon wi amoo problème. amoo problème waaye jant bi soo biir xayma bi fekkal nga toog war a toog. jeex na. ce que. la ci tege mooy ginnaaw dañu laa waxoon fa man farada fii na alxajj falaa rafasa wala fusuuq mhm. wala jidaal fi lxajj mhm. boo jëlee wala jidaal fi lxajj mhm. nit ñi dañuy dem ba ba ba munaa ñëppay connecté waaw waaw aj gi de connexion bi def na ci lu bari moom. gis nga tey fi ne bu ñu demoon aj màkk gi nii nii nii mm, mm. xam nga lu ñu yóbbu. waaw mooy pétrole beeg. pétrole bi Aliou Sall. nga xam ne moom la ñuy commentaire aj gi. waaw <laughs> ci yàlla. wa laa ji daal. Mm. ji daal la ñu def ba ñibbi kii naan la li nga wax du noonu ndax da ngaa far kii ne da ngaa contre rek. waaw kii naan Ousmane Sonko wax na nangam. ñu naan nangam kii nangam. <laughs> tax Idriss dara coolinu kur. <laughs> foofa nag. waaw te walaa ji daal lañ dëgg la. waaye fi ne boo demee boo connecté rek. Mm-hmm. coow la tàmbali dëgg la est-ce que yàlla na yàlla yërëm. amiin amiin yaa rabbal alamin donc lu yooyu yu bëree bëri la yoo xam ne. Mhm. bu ñu noppee ci ci ci ci ci euh, koor gi. Mhm. noppi ci alayhi salaatu salaam yàlla jàngale ko ko nii. Mhm, bu na ko jàngalee nii ñun ñëpp rek buñ ci nattee sunu koor daal di daal di gis résultat. tubaarkal am na solo oustaz jërëjëf jërëjëf ci tomb yu am solo yooy nga xam ne indil nga ñu ko doore ko nag ca weeru koor ga ak émission yi nga xam ne jot nga koo def yëpp mm-hmm. tàmbalee ko ci waxtaanu fajar yi waaye ñëw ci tafsiru alquran bis bu set yi defe naa yaa ngi woon ci wan saar ci koor gi maa ngi woon ci suratul xujuraat suratul xujuraat sori nga ci defe naa ci koor gi ay wala ci ñaari aay yooyu rek nga nekk ci ñaari aay laa nekk est moom di tubaarkal la <laughs> ñaari aay yi daanaka def nga ci lu mat euh, lu gat gàtt gàtt vingt-huit wala vingt-neuf yoo xamante ne def nga ko ci ci koor gi yaakaar naa des na lu tol des na lu tol allah am na solo ndax xam nga sëñ Mbàkke. Mhm. arabe yi ñëw ci yonent ba def délégation. waaw. ne ko aman naa. Mhm. aman daal li ngay woote. Mhm. moom gëm nañ ko. comme cérémonie officielle la. avant délégation bi di dellu. sunu borom ni yonent bi tontu leen. waaw. xul. lam tu'minu. li wax du noonu. waaw. <laughs> walakin. xooloo aslam naa. ñu daal dégg kon ndekete. al iman ak al islam bokkul. Ah. lu xóote ngi noonu. lu xóote noonu. ñoom dañoo ñëw ne ko ñun gëm nañ. waaw mu ne ko déedéet gëmuñu waaye. jullit ngeen. jullit ngéen waaw. mën naa am ñàkk pexe la mën naa am système bee ko laaj mën naa am man naa am waaye ngëm gi amut. jeex na. ci léegi nag loolu nag ci lañ toppoon nag di seet. kon lan mooy iman. waaw. lan la ëmb. waaw. yan jeexantal lay am ci nit ki. Mhm. ki am imaan koo gis noo koy xamee. ci yooyu la ñu nekk ba toll ci asbaabu asbaabu asbaabu uh, asakina. Mhm. ndax laa sakina bila bilaa laa saada te bilaa sakina. Mhm. wala sakina bilaa imaan. Mhm. am na solo jaajëfal naa la ci jaajëfal bu baax a baax oustaz euh, taxawaay bu am solo boobu nga xam ne def nga ko ci ci koor gi naka noonu itam riyaadu saalihin yi téere imaam Nawawi bu am solo boobu mbokk yi bëgg a jàng xadis topp nañ ci lu am solo euh, naka noonu itam yes alunaka ak taxawaay conférence yi nga xam ne am na solo yëpp boobaak léegi ñoo ngi door a dajee ñoo ngi lay jox cantuk auditeurs yëpp ak euh, mbégte mi nga xam ne am nañ ko ci di la delloo jant gi yow tam di la ñaanal tawféex ak sutura ak teraanga ak projet def dara jërëjëf Oustaz kon ñu bàyyee jotaay bi ak waa rédaction bi ñu ñëw ak ñun ci xibaar yi ci français ak ci wolof ñu door a dellu si ànd ak auditeurs yi ci téléphone bi ixlis li rabbika wad'uhu li yuthabbitak wa yuzilu anka wasawisa ash-shaytani wad'i dhunuba kabiraha wa saghiraha fadh-dhanbu yutfi'u jadwata al-adhani wa alayka bish-shaykh al-mu'ayyad bis-sanad al-hafiz الحافظ الثقة الكريم الداني الزاهد الورع المضيئة حاله بمكارم الأخلاق والإيمان لا تنقطع عن درس شيخك مرة واحذر من الإهمال والروغان عقب الصلاة احفظ ثلاثة أسطر مع كل فرض لا تكن بالواني مجموعها هي عشرة مع خمسة في كل يوم باسم ريان مرر ما حفظت بلا ملل واكتبه مشروحا ببعض معاني راجع مع الأصحاب fukki simili ak juróom lil axawaati wal ixwaani wa qiraatun fi hatifin law aayatan xayrun min albutlaani wal hadayaani waqra bi wirdika fi qiyaamika biddujaa fallaylu fiihi lataa'iful man minu jànn ba teg fukki simili ak juróom fii jo si defem seen rajo tabarakallahu kon ñu war a ñëw nag ci beneen xaaj bi nga xam ne moo ci tegee من الهوى حتى يضيء القلب بالقرآن وعليك بالمتشابهات فإنها عون لحفظ الذكر والتبيان إن التشابه في القرآن كرامة للحافظ المتدبر اليقظان وإذا ختمت فراجعا في سبعة متأسيا بنبيك العدنان وابرأ من الشرك الخفي النبي وشره واطهر من الأحقاد والأضغان لا تنتظر أبدا ثناء من أحد أو مأربا إذ كل شيء فاني سر خاشعا والبس ثيابا طيبا متطيبا بالطيب والريحان وخذ السواك مع القرنفل في فمك متنظفا لحلاوة القرآن ودع القبائل ah jërëjëf kon xaaj Mbàkke lan moo ci tege jërëjëf oustaz jaajëfal la bu baax jaajëfal Adama Ndione Alassane Wade jaajëfal mbokk yi ñuy bàyyi xel yépp wàllu auditeurs yi ci topp ci téléphone bi ci 88 628 98 98 bu dee bitim réew ñooy jaar ci 33 841 22 33 وعش به رجلا كريم الطبع غير جبان واستغن بالقرآن عن دنيا البشر ثم استعن بالخالق الرحمن نزل القرآن القرآن لتعملوا قومي به لم يأت للزينات والأحزان يا حامل القرآن فاقرأ وارتقي رتل فأنت المؤمن الرباني بل أنت خير الناس قال المصطفى بحديثه المروي عن عثمان يا رب عفوا إن أسأت 88 628 98 98 الأوطان ولئن أصبت فمنك وحدك خالقي أنت الكريم su doon bàyyi waa bitim réew seen numéro bi nag ñoom ñëpp dugg macha allah. كلام محمد بن أبي الحسن أكرمه يا ذا الفضل والإحسان. Xaj Mbàkke kii nee na daf bëgg a bokk. ñu daal di koy dalali rek asalaamualeykum. aleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah bisimilah. waaw. alhamdulilah. jàngalekat bi maa ngi koy nuyu. <laughs> jërëjëf mi ngi lay fay. waaw dina seen taalibe bi la de. ndeysaan alhamdulilah. Mhm. di yàlla rek. jërëjëf. di yàlla tawféex bu sax daal. alhamdulilah jërëjëf jërëjëf. waaw di rafetlu mhm. allah. jërëjëf jërëjëf. yal na yàlla defal waaw coow de bari fan yii waaye nag moom. tey jii daal moom xam naa ne baax na. dëgg la dëgg jàmm rek a mujj incha sama sët bi tey day déglu may taal ñuy déglu si maam mu ne ma waaw maam. Mhm. maam kii ñu tax sa oustaz Alioune Sall sa oustaz Alioune Sall ma sama oustaz Alioune Sall beneen. <laughs> ah d' waaye nag nañ cee yàlla moom lii dëgg moom dina ko wane. incha allah waaw yàlla na yàlla defal jàmm. amiin amiin yaa rabbal aalamiin yàlla defal jàmm waa yàlla yàlla. amin jërëjëf Diop dagg na waaye ñu ngi koy jaajëfal tey rafet lu duggam bu am solo boobu am na solo tabarakallahu mbokk mi ngi tudd Aminata Diallo ma nga fële ca Thiès nee na di ànd ak ñun jotaay bi ñu ngi koy jaajëfal te di ko nuyu jërëjëf yaay Kumba 88 628 98 98 عقب الصلاة احفظ ثلاثة أسطر مع كل فرض لا تكن بالوالي مجموعها هي عشرة soxna Jinde Gaye ma nga fële ca Tiwaawoon Pël nee na di ànd ak ñun jotaay bi من ريان مجموعها في ستة يا صاحبي Malick Thion ak Mbaye Diop ña nga ca Louga di ànd ak ñun jotaay bi في سابع الأيام راجع ما مضى Babacar Diakhoumpa ci Rufisque la nekk nee na di ànd ak ñun jotaay bi ak Ablaye Kane ci Touba. fahfad xamsa fi kulli yawm. Malick Sall ci raat Menga la nekk di ànd ak jotaay bi xaaj Mbàkke kii nee na daf bëgg a dalal ko moom itam asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum. dafa mel ne dagg na ñu ngi koy nuyu di ko xaaraat min bi jot na ba teg ñaar fukki simili di jégalu ci dagg-daggu xaaj Mbàkke du suñ coobare incha allah ñu xaar waqti liqa wannushi lil axawaati wal ixwaani wa qiraatun fi hatifin law aayatan xayrun min al butlaani wal hadayaani professeur Songe nee na mi ngi ànd jotaay bi nee na albidaaya du karaw benn yoon professeur Songe merci beaucoup الصلاة أيضا فاقرأ واشكر لربك Moodu Mbàkke Mbeng ma nga ca ngaar di ànd ak ñun jataay bi istataata min alhawa xatta yudi alqalb bil monsieur Sène professeur la fële ca kër ma sàmb kër Sàmba Kan di ànd ak ñun jataay bi awnun li xifdi dikri wa tibyaani Daawuda Faal ci Cees la nekk Moustapha Ñang nekk ci Cikke Wolof lil xaafidi al mutadabbiri al yaqdaani Daawuda Ñang ci Komiko la nekk bu yëmbal fi sab'atin mutaassiyan بنبيك العدنان وابرأ من الشرك الخفي وشره واطهر من الأحقاد Masila Gueye Pathé Diop ca Mekhe Village abadan thanaan min ahad aw maraban aj mbàkki nañ da bëgg bokk ne ko ñu jaajëfal ko iskulu say ilfaani asalaamaaleykum aleykum salaam bismillah bismillah Euh, am nañ jafe-jafe foofu waaye ñu xaaraat keneen mu ñëw rek euh, léegi tey mu jàppandi ci 88 628 98 98 33 841 22 33 adnaani ya taliban subula najaati wa ragiban xifda mi ngi wokk xifsa al quraani asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam bismillah bismillah Ibrahima Ndiaye Ndar waaw koy Cheikh Ibrahim waa Ndar waaw sant yàlla kay bismillah waaw ma bëggoon laaj oustaz nan la di nit di def ba mucc. Mhm, ndeysaan. ci jamono ji ñu toll nii ba xam nan la nit di def jërëjëf jërëjëf. li xamee dara laa mu dimbali ñu bu baax a baax. alhamdulilah. tey jërëjëf waaw daal xam-xam ko sopp jërëjëf moom it sopp na la ndeysaan. waaw yàlla nag mi ngi soog a dogal maa ngi soog a dugg ci émission mhm. waaw mais ku ko sopp laa. jërëjëf Ndiaye. maa ngi koy ziar bu baax. jërëjëf Cheikh Ibrahim Ndiaye ndar lay wootee oustaz ñu ngi koy jaajëfal. di nuyu waa ndar yëpp rawatina ñoom Sodou Diouf tabarakallahu ak waa Soor Soor Dagg defe naa la tudd incha allah ci kanam tuuti la ñuy inauguré jumaa joñ leen woon inauguré leen ko ndax mat na. ndeysaan mbokk mi Samba mbay la tudd mi ngi ci unité 25 nee na di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf mbokk mi nee na oustaz jamono ji nan la nit di def ba mucc. waaw loolu de bisimilah rahmaani rahim subhanaka laa ilma lana illaa ma allamtana innaka antal alimul hakim mhm. alayhi salaam daa wax ne na la sa kër doy téyel saw làmmiñ jooy say bàkkaar mucc téye sa làmmiñ jooy say bàkkaar toog sa kër toog sa kër mucc mucc waaw cey téye sa làmmiñ jooy say bàkkaar bu boobaa doota la nekk di wax ci sikkiri ni ndax sa bàkkaar da lay doy waaw ku ku ku say sikk doy. Mhm. doon ci sikki nit ñi. déedéet doo ko tal sax. doo ko tal. Mhm, dëgg la mun na ñetti yow ku ko def mucc. macha allah yàlla mucc macha allah amiin yaa rabbal aalamiin waa ku baax. Baye Ibra Thiam Touba. waaw ah, kay Thiam sëñ Ibra. maa la daan wooyee njëmee naa Tchad rek. wax nga dëgg dangaa ñëw vacances. damaa ñëw vacances waaw. ana waa Tchad. naka fa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. naka waa Touba it. <laughs> baax a baax. bisimilah Thiam. waaw man de dafa am lu ma bëggoon a wax rek sama xalaat. waaw muy wàllu pétrole boobu ngeen doon waxtaan. waaw ndax man yàlla dafa dogal ma def euh, Tchad dix ans. Mhm. Euh, def tamit centre Afrique. waaw def tamit Libye ma xam euh, wàll pétrole ni muy doxee. Mhm. waaw Baye Ibra Baye Ibra bul. waaw léegi ma bëggoon Sénégalais ñu ñu delloosiwaat seen xel bu baax a baax a baax. Mhm. ndax wàllu petrole dafa mën a jaxase ay réew daanaka dëkki Afrique yu bare bari li ko tàll mooy wàllu pétrole. Mhm. waaw te càdd daanaka boo gisee amuñu euh, da genn dal gi ak problème yu fa yu fa yu fa mhm. nit ñu nekk ci ay problème tout le temps daanaka pétrole moo ko waral te loolu ñuy wax naan Sénégal problème mën na fa mën na fee bañ a am. Mm-hmm. bu ñu toppee pétrole bi ak nii ñu ko engagé nii nii nii waxuma la li am ci réew Afrique waaye lu ko raw sax mën na fi am. seetal loolu rek waaw ndax man xam naa ci lu bare bari ci wàllu pétrole. Mm. te xam naa ci ni ni ko nit ñi ni nit ñi doxalee ci seen réew yi. Mm-hmm. ak daanaka bu fa bu bu xasee ba am daanaka ñi nga xam si ñoom ñoo nekk ca bopp ba ñu ñu koy utiliser duñ ci jot. Mhm. dagg na waaye lim doon wax itam egsi na Baye Ibra jërëjëf. ñu ngi ko nuyu baax a baax ñuy waatu baax mbokk mi Assane Diop la tudd mi ngi ci unité 18 di ànd ak koy nuyu a baax Baye Ibra oustaz ginnaaw réew yooyu yëpp mu jot a jaar nee na ñu def rek ndax euh, léeg-léeg coow yi mën naa indi fitna. incha allah xam nga ñaa ngi koy dégg ñoo ngi lay dégg ñun ñëpp danañ ci bàyyi xel bu soob yàlla def ko ndànk rek xam ne nag du lu ñuy xëccoo kenn ku nekk di tànqee naan. Mhm. jërëjëf mi ngi jot na ba teg ñaar fukki simili juróom-benn asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kay. waaw sëriñ bi. naa def maa ngi sant bu baax a baax. yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. ngi lay bu baax a baax. jërëjëf mi ngi lay fay. ñu bu bu ko bëgg moo xam woon léegi. dëgg la dëgg la. première koo a bëgg ci Sénégal. Mhm, ndeysaan Mor Fall la def. maa jërëjëf jërëjëf. ñu ngi rafetlu la. ndeysaan. yaa ngi leen di jaajëfal ci tawéer. amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin. amiin jërëjëf. ñu ngi lay jaajëfal ci sa dugg am solo boobu. jaajëfal mbokk mi di madame Lo ma ci unité 12 di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf ñu ngi koy nuyu Mor Fall ay ñaan la indi ak i siyaare ñu jaajëfal ko bu baax jël mbokk mi egsi noonu moom it asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj waaw bisimilah. Mouhamadou Mokhtar Diop jëppal waaw kay Diop naka waa jëppal ñu ngi leen di ziare bu baax te di leen baalu ak alhamdulilah ñu génn tubaarkàlla di leen ñaanal liggéey bu rafet bi ngeen ci liggéey yàlla na ko saa borom saluer amiin amiin yàlla saa borom defal leen ci jàmm bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf ba ngeen gën koo mën ndeysaan waaw neel neel oustaz tey tey suba ñu bëri euh, euh, ndékki ndax ndax ndax pièces yi xal yi ndeysaan parce que <laughs> keefi xal yi yeewi xal yi. waaw waaw waaw waaw garaaw na de xaw naa ñàng de moom. <laughs> non dafa yéeme dafa <laughs> ragal. am na am na am na nu mu ñànge lool daal. waaw la. waaw dëgg la dëgg la. waaw ñu amoon fi ñaari laaj rek yu jëm ci alxuraanul oh, karim. waaw bismillah. waaw benn bi moo ngi jëm ci sóoratul euh, baqara. waaw. waaw fi ñuy wax yasalunaka anil xam xamri wal maysir. waaw. waaw boobu mooy benn laaj bi. Mhm, ay 219. Mhm. waaw beneen laaj bi moo ngi jëm ci sóoratul Isra. Mhm. maanaam aaya euh, nu mu tuddati aaya oh mi ngi bëgg rek. Ah, euh, aaya 47. aara ah, aaya 47. waaw kay. jërëjëf. jërëjëf maa ngi koy jaajëfal. jërëjëf bu baax di rafetlu duggam bii di ko siyaare moom it tey eh, di ko ndokkeel mbokk mi ngi tudd Mor Seck mu nga fële ci jogo di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf laajam bu njëkk baa ngi ci suurat albaqara ni mu ko waxee aaya 219 yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fihima ismun kabirun wa manafiu linnaasi wa ismuhuma akbaru min nafihima waaw waaw <laughs> mhm. boobu la sunu borom di tàmbalee aaya sàngara mhm. eh, di ñu jàngalaal itam mhm. nu ñuy aayee lu baaxut su xëyee ne bàyyi leen ko mu ja mu mu mirti ca ña koy def mhm. mu def ko ñu tuddee tadaruj mhm. tadaruj mooy ah ñu ngi laaj sàngara moom lu ci wax mu ni leen mhm. am na njariñ am na lor sunu borom nangu ne sàngara am na njariñ lu jara bàyyi xelam noonu mooy nit ndekete doo wax ne waxoo fi dara wala baaxoo. Mm-hmm. dafa am yu mbaaxle. Mm-hmm. ak yu mbaaxlewul. mba ci sàngara sax mu ne am na yu mbaaxle waaye lor yaa ëpp yam yi ah ndax sàngara moom day faj ko nit naanee wala sàngara am na lu muy def ci nit ndekete yoo. lor yàlla ne ne borom ci mm-hmm. mu ne neel. sàngara carte am na njëriñ. am nay lor. yi. est-ce yem ca. am ñu bàyyi. mu dem ba mu ñàgg mu ne bu ngeen di julleeti bu leen naan mm-hmm. am ñu bàyyi mm-hmm. léegi bi doos bi wàññi ko wàññi ko ci pénc mi nag mm-hmm. mu xëy rek ni innamal xamru waaw bu ko fi kenn laale bu ko jeex <laughs> kon étape par étape la ko doon tere étape par étape la ko doon tere ci sama waaw loolu tam ñi nga xam ne ñooy def daawa ci pénc mi yooyu bu ñu bàyyee xel ci loolu rek léegi te nit ñu topp leen ci rythme bi ñuy doxee. dëgg la waaye xat ci capital. affaire bi du sotti. dëgg la su koran ci laajam ba am solo boobu. macha allah jërëjëf maa ngi koy jaajëfal baax te rafet dugam bu am solo boobu beneen aaya ba mu ca teg mu ngi ci suurat al isra aaye aaya 47 la wax. Mhm. Euh, aaya 47 de bu dee fa lay tàmbalee mooy doon foo borom bi di waxee naan nahnu ahlamu bi maa yastamiuuna bi. is yastamicuuna ilayka wa is hum najwa is yaquulu zaalimuuna in tattabicuuna illaa rajulan mashuura wallaay ndeysaan loolu de mooy gaa yi nga xam ne ñoom la alquran di wax wa jaalna ala xulubim akinna akinna ndeysaan mu ne ñun ñoo gën a xam ñi lay déglu ndax dafa am ñu lay déglu ñoo xam ne bu ñu dégloo ba noppi commencé laa jëw jëw gi nag mooy mhm. waaye yéen kuñ njabar ki ngeen di topp mhm. in tattabi'una mhm. illa rajulan mashura unsur rek kayfa darabu am amsala maanaam dafa am ñoon ñu ñëw ci jataay bi suñ mbàkkee mel ni ñëpp sol xaftaan ni ñëpp sol yor seen kurt ni ñëpp waaye bu yonent bi di wax ñu ngi ñi jéem ñoom lu yàq ca wax ja ba naan bëgg a tudde yonent bi ab dof walla kuñ jabar waaw ki ngeen ki ngeen topp nii ab njabar ak ku jabar la mhm. wala ko wéradi la mhm. su nu borom daa xoolal rek ni ñu saddee misaal ci kii war laa waxee neneen waxuñ ko xanaa naan la dañ dangaa wér a dégg dangaa def naa mhm. ak ngaa su rek wér a waaw dëgg la sukkuran ci laaj mbaam wallaay oustaz jërëjëf ci tontu lu am solo lii sëñ Daouda Fall Thiès jërëjëf ñu ngi lay nuyu mi nu jot na ba teg fanweeri simili ak ñaar وراغبا حفظ القرآن am na nag soxna su tudd soxna Aïcha Mbeng suñu bàjjan la am na yóbbante bu mu jëme ci yow. Mhm. tabarkalla te tofal ci ay wax. ñu ngi koy nuyu baax te ñu koy jaajëfal jërëjëf Mbengue Aïcha walaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf Mbengue. kenn ngi ne dafa bëgg bokk ne ko. ñu dalal ko ci jotaay bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bisimilah bisimilah. ñu ngi leen ñu ngi leen di nuyu. jërëjëf ñu ngi lay fay. di leen sant. jërëjëf jërëjëf. am na am na benn laaj bu mu bëgg a laaj. waaw. ndax ku saaga gorom. Mhm, loolu day day tas sëy. d'accord. saaga sa yaay jabar wala sa baay. Mhm. ndax loolu tas na sëy. d'accord. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal baax te di la ndokkeel tey rafet lu duggam bu am solo boobu. jaajëfal mbokk mi Dame Fall Dame Fall mu nga fële ci aéroport AIBD di ànd ak ñun jotaay bi. mu ngi koy nuyu sëñ Dame jërëjëf mbokk mi nee na oustaz nit ku saaga ab gorom ndax loolu day tas ab sëyam. ah xam naa bu ko tasut lu ñaaw a ñaaw la. Mhm, xam nga bu jigéen bu góor ne jabaram yemal naa la ak sama yaay am na lu mu wax laa ilaha illallah lu rëy aw saaga nag mooy mhm. yemal naa la ak sa yaay mhm. Mhm. waaw boo ko waxee sa goro maanaam sa soxna loolu nga ko wax loolu nga ko wax bu ko nit kii demee ci goroom wax ko nag mooy na ma fa ma fa ma jàpp sa doom ji jàpp naa la fa wala sa yaay yow sa bopp mu ngoog kon bu ko araamul it ñaaw na lool ñaaw na lool ndax su ko waxee fee hmm. dañ koy woorloo ñaari weer toftaloo mbaa du am jabar hmm. ndax daf ne ko yemal naa la ak sama yaay hmm. tey nag mu ko ne ko yemal naa sa yaay garaaw na waaw garaaw na lool moo tax bu tësulub sayit suñ sàmbay daana wax ne hmm. bu tasi sëy wax ju ñaaw ñaaw la hmm. waaw lool nag hmm. ndax fee côté bee dañ lay woorloo ñaari weeru toftaloo côté bii kon lu ñu la war a def loo est-ce que garaaw na lool garaaw na lool wax nga dëgg jërëjëf ñu jaajëfal ko ndokkeel ko baax sëñ Mayoro Fall jërëjëf nee na mi ngi ànd ak ñun jotaay bi ñu xaar keneen القرآن واقرأ بوردك في قيامك بالدجى فالليل فيه لطائف المنان Amin Njaay kër Daawuda Siise nee na mi ngi am jotaay bi nelawagul اذكر لربك واسع السلطان واحفظ فؤادك ما استطعت من الهوى حتى يضيء القلب بالقرآن وعليك بالمتشابهات فإنها عون لحفظ الذكر والتلاوة الصبيان إن التشابه في القرآن كرامة للحافظ المتدبر minu jonoon ba teg fanweeri simili ak ñeent fi studio bi tabarakallahu mën ngeen ànd ak ñun jitaay bi متأسيا بنبيك العدنان mbokk maa ngi ni xaj Mbàkke ne ko ñu dalal ko asalaamaaleykum génn na dafa yëndu rek faf mu dagg waaye maa ngi koy xaaraat ci 88 628 98 98. waaw mi ngi nii de xanaa wala mbokk na ñu dalal ko mi nu jot na ba teg fanweeri simili ak juróom Adja Fatou Thiongaan Paris jërëjëf asalaamaaleykum. waaleykum waaleykum salaam. El Hadj waaw. kooku sa xarit la Boro. ci loo nekk. <laughs> maa ngi nii rek. mu ne man bés dama waaw noonu la tëdd teel na yooyu tey la jeudi. ah. ma ne tey la di dem ba une heure rek door a fatu ndànk. waaw waaw man de xamoo nag man damay faral Thiès. waaw mais damay xëy di liggéeyi ci yow Thiès ngay ñibbi di xëy si Dakar. chaque jour chaque jour macha allah jàmbaar nga. boo may damay sonn. waaw loolu moom da ngay xaw a sonn tuuti. waaw damay sonn. Mhm. mais yéen moom bu leen déggoo sama naw day daal jeex. saan ñoo bokk mbuus. waaw ma kontaan ci yéen rek yow oustaz di leen ñaanal. jërëjëf. mais yore naa leen seen sukkur koor nag naa leen ko jox incha allah rabi. incha allah incha allah. waaw mais dama leen di wax dama la waxoon naa la wax rek ci weeru koor bi. ndeysaan. mooy que ne dëgg daal ci loxo yàlla lay njëkkee. jërëjëf jërëjëf. damay delluwaat rek. macha allah. en tout cas yàlla na yàlla may Sénégal jàmm. Mhm, ah. jàmm te ñuy dund jàmm am kii kayit li baax di ko dëkkee rek mais yàlla dañ ñu may jàmm rek yaa salaam. amin amin yaa rabbal alamin waaw daal laay ñaan Sénégal ak lépp lu wër Sénégal. yàlla defal ñu ko jërëjëf mhm. jërëjëf en tout cas dëkk moom ci yàlla lay njëkkee dafa lay delluwaat. Mhm. macha allah. macha allah. jërëjëf Boro. nuyu ñu waa maa ngi koy jaajëfal bu baax rafet lu dugg bu am solo boobu. mbokk mi laahi ndaw la tudd ma nga ca parcelle di ànd ak ñun jotaay bi. Mhm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax te di ko ndokkeel. jërëjëf ñu jël kooku asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah bisimilah. sëñ Mbacke ñu ngi lay ziar baax a baax. ñu lay fay. alhamdulilah laaj bu ma bëggoon a laaj rek. Mhm, bisimilah. Euh, mooy ci damay dégg rek euh, bu fi nit bàyyi mhm. ñaan naan yàlla rëcc lu def. loolu war a wax wala. waaw baax na oustaz dina ñëw léegi. loolu de laaj. tubaarkàlla jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal te di ko nuyu tey bég ci duggam bu am solo boobu ak laajam bu am solo boobu mu indi kii mu ngi tudd Abdou Salam géey ma nga ca dalli fort di ànd ak jotaay bi ñu ngi koy nuyu suñu Abdou Salam jërëjëf Guèye mbokk mi neen bu fi jógee maanaam ku faatu léeg-léeg dañ na euh, réccu lu mu fi doon def mu ne ñaan googu la ñu war a ñaan wala waaw buñ buñ ko saraayee dara nekku ci mm-hmm. yàlla na réccu lu mu fi doon def mm-hmm. mooy yàlla na foofa neex ci moom ba mu naan su yëgoontee la ñëw mm-hmm. waaw loolu lay tekki loolu lay tekki yàlla na àllaaxira neex ci moom ba mu naan mhm. su ma yëgoon la a ñëw mhm. loolu la baat bi loolu tekk mooy yàlla na rëcc lu mu fi daan def mhm. waaw tubaab am na solo jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal kon tey rafet lu duggam boobu euh, kooku da doon ñëw waaye faf na dëpp ñu xaar ko ci yoon bu ñëwee ñu dalal ko ñu nii nee na ñu dalal ko asalaamaaleykum waaleykum wa rahmatulah la waaw Abdourahmane na def Thiam waaw kontaan naa de. Mhm. macha allah macha allah bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. di nuyu Oustaz. alhamdulilah. Oustaz. Mm. Eh, Serigne Mbacke Sylla nee na. waaw bokk na si yóbbu lu aj mm. ab fulla bu doon bu la kenn yàqal li ngay de mm. loolu laa amoon ci war a siyaar de. jërëjëf jërëjëf Abdourahmane ñu ngi koy jaajëfal suñu soppi boobu oustaz tey rafet lu duggam bu am solo boobu. tabaarkallah mbokk mi mi ngi tudd Keba Thiam ma nga ci géej waaye di ànd ak ñun jotaay bi. ñu jot na ba fan fanweeri simili ak juróom-ñett ñu wéy di leen xaar. ñu jaajëfal ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi siyaar. yal na yàlla nangu siyaar. alhamdulilah. alhamdulilah. Ah, waa dama doon ñëw ci treizième mois quoi. Mhm. xam nga selon l'histoire ci leer ci ci eeru Médine au neuvième siècle. Hmm. la verset bi wàcc publiquement fekkoon juif yi jël benn mois dugal ko muy treizième mu ñu intercalé ko. Mhm. léegi bi ñëw sootul Tawba euh, numéro kii euh, euh, verset trente six. Hmm. yàlla ñëw ne. bu mu créé àdduna ba léegi weer yi douze la. Mhm. léegi ñu ñëw ci système bi nag instant bi dangay gis dans la fonction publique gars yi dugal ci treizième mois. Mhm. léegi dama doon oustaz nan la gisee loolu quoi. d'accord est-ce que. waaw yàlla yàlla daal kenn la quoi islam nekk nekk jullit daal moom mooy xéwal quoi. alhamdulilah jërëjëf. loolu yàlla yàlla ñoo présenté ñëw nee ñu weer yi nii la xam nga loolu rek doy na. Mhm. Mm-hmm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu jaajëfal mbokk mi tabarakallahu di ànd ak ñun jotaay bi tudd Adama Congaan ma nga ca Ndar di ànd ak ñun jotaay bi ci weer yi la def am njàngat ak ak seetlu ba ñëw daal oustaz ba nga ñëwal ko ci ci suñu borom limee weer yi ak ni ñu demee ba euh, scientifique yi itam génnee ko te fekk borom bi noppi woon ci bu yàgg waaw suñu borom di noppi woon ci bu yàgg def ko fukki weer ak ñaar te itam bu ñu defee treize mi dinañ jël si ci douze rek mm-hmm. douze dong la nag janvier ba décembre lañ koy jàpp ñu naan muharram ba sulqa euh, sulqada mhm. xaw ma sul xijja ñu mhm. ngi koy jàpp ñu fukki weer ak ñaar rek tubarkàlla dëgg la wa ci laajjëm ba am solo boobu jërëjëf contribution bi jërëjëf ci tontu la am solo loolu ñun ndokkeel ko te jaajëfal mbokk mi egsi asalaamaaleykum aleykum salaam bismillah sa mbagg ci la waaw mayoro yàdd mayoro mayoro yàdd na def na ko waa dalifoor jàmm rek kay yàdd. waaw. na ma waaw. waaw mooy eh, ci suuf suuf laxzaab. laxzaab al ahzaab waaw. waaw falammaa qadaa zaydun minhaa wataran zawwajnaakahaa mm-hmm. incha allah jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafet lu dugam bu am solo boobu. mbokk mi ngi tudd Gora Diop mu nga fële ca Jaxaay di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf sëñ Gora jërëjëf waa Jaxaay ñoom Mor Seck Jogo gaa yëpp euh, surtout al azab la dem ak ñun oustaz aaya 37. Hmm. mooy tolloog fo borom bi di waxee naan. wa it taqulu lilladina anama allahu wala lilladi anama allahu alayhi wa anamta alayhim ba muy jeexal na ca la wax naan falamma xadaa zaydu minha wataran zawajnaakaha li kay laa yakuna ala al muminina xaraj foofu la bëgg nga ñëwal ko tabarkàlla jërëjëf ci laaj maam solo boobu mhm. borom subhaanahu wa ci saar wii di eh, al ahzab mhm. ngi ko tuddee ñi coalisé woon pour bëgg fee jële diine mhm. waaye mu am ci biir saar wi lu ñu tuddee guerru média ñu ñu ñu bëgg yàq ca kër yonent ba mhm. lu jaaduwut parce que dafa am lu yàlla bëgg tere mhm. te mooy adopté nit mhm. def ko ca sa njaboot jël ay këyitam dugal ci say këyit ba boo faatoo mu donn la bu faatoo nga donn ko suñu borom bëgg wane ne loolu aada la ndeysaan du du ginnaaw du aqiqa nag aada la dafay war jóg dafa war a jóg léegi nag pour mu jóg fi du ko gàll ci jaambur ki mu yónnoon ci ñu la koy gàll mooy mu ne nag sëy bii nga takkoon mayoon jabar kii jabar jooju ba tasee moom ngay takk ndax loolu jóg fi waaw loolu loolu yonent bi alayhi salaam tàmbali nan ah suñu borom ne ko waaw mm-hmm. nun lay deme de moo tax mu agsi ci fa lamma qada zaydun minha wataran ba zaydu nappee ci sëy ba hmm. ba idda ji jeex hmm. zawaj naaka xaa ñu may la ndaw sa ndax loolu daana bañ a amati ci pénc mi kuñ naan sama doom hmm. mu naan bàyyi ba tax bu ñu deexee ñu donante loolu dafa war a jóg ci la yàlla araamale adopté wala adoption est-ce que waaw am na solo jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal te di la jaajëfal baax ci dugam bu am solo boobu mbokk mi asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah Dieng. Oustaz Mbacke. waaw kan la Gassama. waaw Gassama mooy woote. Gassama bisimilah naka waa Thiès. ñoo ngi sant bu baax di la nuyu di la ziar. jërëjëf jërëjëf Gassama jërëjëf. di di nuyu Oustaz. ngi lay fay bu baax a baax. Oustaz Alioune Sall ñoo ngi koy déggee bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf mi ngi lay fay. wax dëgg yàlla Mbacke suñu Mbacke. waaw. yéen yéen a ngi indi actualité parce que yamu leen ci sëriñ kese. ndeysaan wala Oustaz a ngi xool penc bi li mu laaj alhamdulilah. ngeen koo def keroog am na ku ma ko wax na ko imaam wax dëgg yàlla ak ñi nga xam te ñu ñëwaat diine ji. Mhm. bàyyiwul leen tudd doom kese. Mhm. ak li nga xamante ni mooy juleen ne ak takk seet. ndeysaan takk takk mhm. ndax suñu borom su loo doo yónni ci nit ñi ngir ngir laa bëgg leen xam-xam boo xam te ni da la ko jox ko ñu ci def. ndeysaan da nga leen dimbali. sànq oustaz def na fi tam boo xamante ni laa nga ko ay question ci li nga xamante ni mooy actualité réew mi. wax ci fi mu toll wax joo xamante ni lépp ci dëgg la ko teg. Mhm. kon ñi nga xamante ni ñooy jiite il faut ñuy déglu seen émission yi ngeen def. incha allah jërëjëf. ndax quatre-vingt-quinze pour cent musulman lañ wax. Mhm. yonent bi lañ ñu raw la ko. wa wax na sànq ci xeetu àtte bi nga xamante ni kan waxoon dañuy dagg loxoom. Mhm. te mu doonoon koo xamante ni dafa bokkoon ci askan. mu xamal ne ko Fatima sama caat nii su doon tey def na lii kii def. ma dagg loxo bi. oustaz nag maa ngi ko laaj benn question sànq dafa mhm. lan la. Mhm. loolu mooy suma question di leen bu baax di leen gërëm. nga ne question bi mooy ne nga bi mooy lan dafa xaw a kii. oustaz ak sëriñ. d' accord lan moo leen wutale lan moo leen am na solo oustaz ci ñëw léegi. waaw waaw jërëjëf. ndeysaan jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey lu dugam boobu fal mbokk mi di Alioune saw mu nga fële ca Déni Biram Ndaw di ànd ak ñun jotaay bi. di ko nuyu baax di nuyu sëñ Saliou saw moom itam di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy soppee El Bidaaya yi. Mhm. gasama nee na oustaz lu wutale sëriñ akub oustaz. jërëjëf sëriñ mooy ku ñuy déglu ci wàllu diine. Mhm. muy diglee ka tere. Hmm. oustaz mooy koy waaraate wala ñu jàppe ko koy animé. Hmm. waaw loolu la mu wutale. ndeysaan. rek tabaraka ci sunu penc nag ñun. Hmm. ci aada ji loolu lañ koy defee. wallahu taala alam wa shukran. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal tey rafet lu baax dugam bu am solo boobu 88 628 98 98. naan lii ma wax ku ko fi wax. ren doo a wax déwén te sax suuf dina xar la dëj. walaay mi da bëgg a bokk. di ko dalal rek te di ko. waaw kay si la. na ngeen def ak noo def ndeysaan Dramé Dramé. maa ngi leen xam nga yenn xeeti sant yi moom du ma ci kii ko gaawutu. <laughs> waaw man de dama doon laajte ku faatu. <laughs> Ah. yére yi mu bàyyi. waaw comme miraas bu ñu ndax mën nañ séddale yére yi. d'accord jërëjëf. waa di laajte tam euh, boo demee ci jàkk ji hmm. booy julli pour mii euh, jàkk ji hmm. ndax boo naafilawu ci kër gi liñ naan euh, tàkkusaan mën ngaa def ñeenti ràkk mën nga boole yéene waale ñeenti ràkk yeet nuyu jàkk ji yëpp hmm. laa doon laaj jërëjëf jërëjëf Adja Mariama Dramé ñu ngi koy nuyu di nuyu aju Pam Ndiogu sàll ak famille bi yëpp mbokk mi ngi tudd Serigne Mbacke Sène ma nga ca caaro yu pastu di ànd ak ñun jotaay bi ñu ngi koy nuyu moom it tey ànd bi ci jotaay bi Adja Mariama nee na ku génn àdduna maanaam ko faatu te hmm. miraasaguñ ko ndax ay yére mënees na ko maye loo ci xam ne buñ ko yëkkatee hmm. mu am valeur quatre mille cinq hmm. kenn du ko maye kenn du ko saraxe loo ci xam ne buñ ko yëkkatee mu mat quatre mille cinq cent kenn du ko saraxe kenn du ko may dañ koy boole xayma lépp ba xam ñaata la ci xaalis. Mhm. door koo miiraas. ndeysaan dëgg nee na ki ñëw ci jàkka ji te fekk muy ginnaaw tàkkusaan ndax day def euh, ñaar rakk yooyu ñu nuyoo jàkka ji wala day ñëw rek toog. waaw comme moom julleegul daal bu ñëwee. Mhm. mën naa def ñaar ràkk defaat ñaar. mu ko mhm. neexee defaat ñaar door julli tàkkusaan. waaw wallahu taala alam wa shukran. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal jërëjëf euh, mbokk mi di xaar keneen ci ginnaawam ci 88 628 98 98. am na ku ñëw. ñu dalal ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. sëñ Mbacke ñu ngi ziar. waaw koy jërëjëf yal na yàlla nangu si yàlla. Aline Aline Badara Diouf Wakaam. Aline Badara na nga ñu ngi baax na mën nañ leen bàyyi ñu ngi ci jàmm. ñoo ngi ci jàmm ñoo leen raw. na ko saa su nekk ñu ngi bu baax. waaw alhamdulilah jërëjëf. man yàlla guddal fan yu te wéral ci yaa rabbal aalamiin. baax di yàlla ci émission bi. jërëjëf jërëjëf. waaw tey moom dañu leen di ziar rek ndax mbokk taal bi yoo xam ne dañu may mere nee nañ saa yu ñu duggee duñu dañoo sopp oustaz sax maanaam ni may jokkoo moom comme tële nañ ko. waaw ma ci àgg rek muy sëñ Souleymane. ndeysaan. ak Serigne Mbaye Wakam. jërëjëf. waaw ñu ngi leen jaar bu baax nag. jërëjëf jërëjëf. ak Papa Ndiaw ñu ngi jaar ñëpp nag. jërëjëf nuyu ñu leen ñoom ñëpp. tubaarkàlla ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax tey rafetlu dugg bu am solo boobu jaajëfal mbokk mi Mouhamadou Mamar Ndiaye ma nga ca xombal moog saa si mbuub di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal tey rafetlu duggam bu am solo boobu minu jot na ba teg ñeent fukki simili ak juróom-ñett ñu xaar keneen ba mu jëloo mu jum yóbbaale na malaan mbokk mi ne na waaw koy ñu jël ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah waaw sëriñ bi waa kenn ci la ñu ngi leen di siyaare bu wér jërëjëf jërëjëf di nuyu oustaz waaw koy ndeysaan di leen jox seen euh, wàccuwaay jërëjëf jërëjëf waaw kii de mbokk la moo xam ne dafa dégg léegi benn laaj bu suñu benn mbokk euh, àggale foofu ci yéen waaw Euh, ma bëggoon na xam naa indi ci tuuti leeral daal mooy ki leen laaj mbirum deuxième mois. waaw. waaw xam nga léeg-léeg nag yéen laaj day orienté ba xëy na sax ngeen baal ma waaye mu dugal leen. Hmm. Euh, treizième mois bi mu wax bi. Hmm. maanaam ci fonction publique. Hmm. loolu ci wàllu payoor la. xeetu prime la boo xam ne xeetu buñaa la boo xam ne daal bu at mi jeexee. dañuy fay nit ki weeru décembre am. dolli ko ci beneen weer mu doon prime loolu dafay fekk nii ci entreprise ak fonction publique dañ koy négocier ak euh, ak ak kilifa yi daal. Mhm. waaw ndax bu fekkonte ne. weer xam ne jotewul euh, jotewul dara ak weer wu ñuy séntu. ak wu ñuy daal waaye ci wàllu doxalin la weeru payoor ak weer wu ñuy séntu. d' accord d' accord. waaw ndax xam nga léeg-léeg weeru koor am entreprise yoo xam ne dañuy joxe ay mhm. avance sur salaire. dëgg la. a mën a wari woon. Mhm. waaw. am na moom. leeral leeral bi am na solo jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal baax a baax tey rafetlu digg boobu. Mhm. Mhm. jërëjëf jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafetlu dugg bu am solo. loolu la fasalu ala zikri di tekki in kuntum laa taalamuuna kon nag sa dugg bi am na solo ak leeral bi kii mi ngi tudd Yirim Mbay ma nga ca Thiès di ànd ak ñun jotaay bi. incha allah jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey rafetlu dugg bu am solo boobu ah, asalaamaaleykum. wa rahmatulah. Eh, waaw kay jërëjëf na ngeen def ak coono yi. ñu sant ba Oustaz waaw. waaw na ngeen matale aj gi. na ngeen matale aj gi. parce que Oustaz kii waaj a aji nga dégg ñi ne na ngeen matale aj gi. waaw moom mu ne waaw man moom aji rek laa xamoon léegi lan mooy matale aj. matale aj mooy. Hmm. soo xasee da ngay xiiraan. Hmm. li xiiraan laaj lépp na nga ko def. Hmm. booy ifraat.